am jërë ngeen jëf yéen ñi nga xam ne yéenay bàyyi xel gis ngeen ko ñu ngi fii tey arène nationale ci journée ba tey Ousseyn moo taxawal bi ay xale yoo xam te ni yaakaar naa ne tubarfakalla masha Allah kenn dootu leen présenté ndax kii ma fekkoon mooy borom dóor yi dafaati waaye ki ma toog fekkal nii nag di Moussa Siteu nekk xale boo xam te nii kenn dootu ko présenté daa am nee naa leen bëreekut nag waaye wala ko xoolee xam ne yor na dayoo yu bëri yor na lépp yu bëri kon nag ma naar naar yaa ngi damay bàyyi bu nuyoog adversaire am di dugg ci journée bi ndax la douze la lépp ci la douze rek lay xewee Ouzin la ndax bari na ay combat yoo xam te ni taxawal na ko ren ci saison bi bokk na promoteur boo xam te ni mën naa ko tuddee c'est le meilleur promoteur la boo xam te ni daal mooy promoteur des jeunesses. jégal de waaye jégal de. ah damay commencé waat. Thank you.

waaw ñu ngi siyaare bu baax a baax di la fay. waaw loolu mooy nag kàmbatal kàmbatal daa mel ni ñu koy woowal. moom mooy jullit yi daal ñu ne xajul si moom. mais gis na maa fas kanam bi xam nga Moussa si biir ngay bëri. non Moussa si biir moom moom mais lan la kam bëri yi rek ñu dañu dugg fu ne di bëri te ñu ñu ngi bëree tamit di dugg ay tournois di fa daje ay saako yoo xam ne ñu suuf soo mën a di bëree ñoom. jàppale daaw ren kon yaakaar naa ne mosul bëre xam naa ne moo tax mu kontaan na yaa ngi gën a xam xale boo fi jëlee loo xam ne nii mosu koo mosu koo am rek day kontaan mais lu bëgg la rek daa mel ne xale boo ko joxee lu bëgg day reere maa ko gën a soxla fuuf na maa ko gën a soxla maa ko gën a soxla tey damaa bëgg damaa bëgg waa Dakar xam yaa ngi dégg. yaa ngi soog a bëri. non non bëri naa fii bëri naa adresse bi bëri naa Iba Mar

loolu yàgg naa koo dégg mais ñu ko wax ñëpp bër bi suuf la ñu dellu ginnaaw li ma koy ñaan bër bi suuf na suuf lay tànn taxaw xaar ma ne xam ne fu mu fekk fu mu taxaw dinaa ko ko seet ren ay dégg nga dafa ari. xës-xës lay waxal de. Eh, waxal ak moom lay. lu leer la wax xës-xës waxal. waaw xale bi xew si jamono bi ngay waxal de. waaw baaba yi moom ngay demal tool bu bis ba. déggoo eh, ma si ñaabe la juddoo bawal la fa ne lu leer laa la wax. bi daa da nga doon yor mais yam nga. barki alxuraan la gën a soxla foofu baaba barki yeneen barki yow bi laa wala di nga jéewul fi laa la ko waxee barki alxuraan karim dinaa la jóom ba nga boo ko suulee sampal say tànk man koo ma tànk ginnaaw nga ma samal say tànk billaay koo ma tànk ginnaaw tapet ne ko ci man su ma naree ragal damay bàyyi waaw lan waaw waaw la xoolal si ñaar bi la juddoo. lu leer laa la wax sëñ bi ñu juddoo fa lañ jaroo fa waa waa Bawol dañ maa yaakaar karim dañ maa yaakaar. man waa Malika dañ maa indi ma. waaw waaw barki alxuraan karim damaa sonn ci yow royal nga si hôpital nga juddoo ma juddoo ma si hôpital la. jënd ma jaay ma juddoo dégg nga ma juddoo ma juddoo ma juddoo ma juddoo ma juddoo ma dégg nga ma leer naa ma ci laaj. waaw leer naa ma waaw ñoo juree bi ñu war a juree ñun. yow hôpital nga juddoo ma juddoo ma juddoo ma juddoo ma juddoo ma xoolee nga xam ne man ak yow juddoo. ay bëri sëriñ taxaw nga jaww ji di taw di ma daw sama yaram sax. waa baax na dem nii nii nii ay feem la rek. waa baax na gis naa bu ne. parce que alxuraan kër nga bu fekk yow. yow daal li ma lay ñaan bu lamb jaar Ah, waaw yaramam tàng na barki yéen a li nga war a indi damay xeex ak yow da ko indee rek moom xam naa doo barki alxuraan man damay ah, xeex bëréew ah. ma de jour yi barki alxuraan karim dinaa la dóor bu nga këbal musuma du baax na yow man maa lay maa ngi leen si biir gi barki Serigne Bamba di nga jéewul te bu arbitre soufflé boo dellu ginnaaw ma barki yéen di yàlla Muhammad di nga jéewul déggoo ma de waaw baax na yow da ngay xaar. yow sa borom bu rëy bi JP combat dafa gën ko laaj. wala gam bii bu yow lii daal yoo jaaxal. lii day nëbb maas day gën a ko waar ma màggalee ci ko. dama doon sa boobu. abal ko abal ko bu màggalee ko. dégg nga moom c' est ma moom loolu. c' est ma ko moom. parce que sa am nga combat yow bàyyi ma nga am nga combat ma lii daal daw sama yaram papa nga am ma lii man bu ma adversaire bu yow man sama taay moom man xool sama taay man moo may loolu lamb yow bu ma adversaire bu yow yow yaa bëggul lu yomb ñun ñu xam na àll ba la dëkk da du lekk lu yomb. yomb duñ ko lekk mu ngi si yow dama lay sant ma yow dinaa la torojo morojo la. yow bala ngaa riigi faaw nga raaga bala ngaa raaga faaw nga raaga dinaa la wañaxal yow. yow eh, dama ay dama waay. yow nit ñi xamagul la. Ah. dama lay dimbali pour ñu xam la. <laughs> te boo laajtee Tapha Tine xës xës ñëpp xam na bu arbitre soufflé da nga sos kanamu bandi la sama kanamu bandi Tapha ah waaw la wala wa taala man dégg naa mu ne gis naa mu ne Baba man gis naa ko mel ni quoi yow kii day <laughs>

mën a jàppee jën la saat bi nga naan moom la ak Serigne Bamba wala wallahi yéen ay mbëri jaataar ngeen ñun dañu wàcc si jaay bi di mbapat bu mag lu leer naa la par alxuraanu karim fu làmbul tëggee dañuy dem dañuy mbapat dañuy dem fu ñu kenn xamul ñu tàkk saa dem di bëri Ya, xam ak say làmb par alxuraanu karim yaa xam ak say làmb jël ay mbapat ñun dañoo naru yaa xam ak ñoom waaw yow xaalisu làmb xamul loolu mu sax xam ak ñoom xam sax yow bu baax da xam dama ba ko di nga sa ini kenn xamul leen def sa yéen bëgg a jaay lu la neex la yéen saa yi ngay xañ suñu ma waaye waaw di ci wax wax malika yëpp ba ci sëriñ baba seen doo wax yow leen ala ka wa teewal ala ka wa daal daal yaa di ci wo gëna si de rompoy si de jaamu de tamit tamit Ousmane Diop dëgg ba dara maa ngi woo ci làmb ji mu jàpp bu baax a baax a baax waa leen woo ci làmb bu baax waa Mbëbës suñu noonu daay jëmoo gaz gaa yëpp maa leen woo ci làmb bu baax a baax a baax sama waa koñ xam nga jógee dee seen gaay maa leen ci woo bu baax a baax a baax yéen bëri seen woote bi jeex ay woote làmb ji waaw di santaat yaa di woo di leen sant waa groupe jéeli bi waa Mbacke Bawal di leen sant waa groupe jéeli bi waa Ndiaré ñu woo ku ci mën suñ koy ngeen saltige bu mag bi si Bawal saltige waaw saltige bu mag bi si Bawal di woo waa Diourbel yëpp ay Moussa di leen wax ne seen doom am na combat di woo waa Révolte waa Réew Ma waa Dumatou waa Ndangal waa nekk leen di woo di woo waa Kër Massar di leen woo waa Rompé Guy ah di la waa Médina fan club Tafatine bépp ñu ngi leen di a baax a

bëgg naa may génne ñu benn combat vraiment tànn ñi nga xam te ne ñoom seen tànne bi xam te ne mooy Tafatine tànn xam te ne vraiment ku gis ñu waxante nga xam ne. non ba pare ñaari ñaari daaw yi dañoo tolloo. voilà tolloo na ñu kenn ku ci nekk dafa am loo xamante ni ci biir ñu waxante rek ñaan ñu xam nga rek ci lay ci xam nga li wax rek. say def drapeau rek. ah ah bi mu dee dina waay drapeau moto. drapeau moto ah. drapeau moto boobu loolu day neex. ah loolu loolu mooy loolu moom la. lu leen di doy vraiment di daw bu dee ko jël xam nga kon yaatu na ñu sant leen ko benn combat ñaan yàlla ñoom ñaan ñëpp ñu xam ne vraiment man jigéen nañu dañuy fas yéene defal leen seen lépp lépp ci fees lay quoi di ñaan yàlla nag seen mobilisation seen préparation ngeen ngeen ngeen ngeen xam ne seen jigéen moom ngeen bëree ndeysaan non lii aussi ay surprise la waat ci biir ndax matu jigéen ju man góor la mooy borom jël bi bi mu duggee ci làmb naam yàggut waaye fexe na ba marqué ci empreinte ci jom ci fulla ci fayda la jigéen la boo xam te ni kenn mosu ko dégg ci yu jigéen boo xamante ni vraiment jigéen ju man góor la ñuy wax parce que gis nañ ko li muy trois heures du matin ngay ngay ak sa sa sa sa doom bi loolu laa koy vraiment mu nekk koo xamante ni ba ñu ngay dëkk gis day ree rek foofu fàcc day defar dañ koy ñaanal yàlla nga xamante ni bëgg na ko am te na ko yàlla ko yàlla dimbali ba mu may ko ñu nga xamante ni koy ñaanal nekk bu baax wax dëgg yàlla man nga xamante yàgg na ne vraiment ñu relation man ak moom jàmm rek laa ci gis avancement lu rafet dañ may man lu nga may conseil xëy na nag yéen ñi nekk ak moom bokk ngeen ci li tax ngeen def ko loolu. ndeysaan non non non loolu sunu bis la loolu moom indi yaam nañu waaj ñoom Babacar ak gars yi ma fi yaam yëpp nañu waaj xam nga loolu làmb yi dañ koy jaay bi sunu làmb li ku ci am la mel bi sunu làmb la kon bokk ah. di ñaan yàlla ki nga xam ne mooy Tapha moom ñu préparé combat moom ki nga xam ne mooy Moussa moom ñu préparé ñu def combat boobu combat bi gëm naa ne mooy combat yi dàq ci le douze heures incha allah ndax man am personne la ko waxoon def ma deuxième ñu nekk ci bëgg laa mais matul vraiment lu ma ñaan ma ko may. c' est ça ma ko waxee rek ma ñoom ñaar ñu xam li ñuy bëree. waaw da ngay ñëw rek kër Masar. waaw loolu dañuy ñëw gën a xam. loolu dañuy ñëw drapeau journaliste tamit nag di sant adversaire bi bu baax a baax a baax. ndax xëy na nangu na maa jël. yaa ngi dégg tamit Mohamed dafa ma war a sant. ndax ñu ñaar tam ni mu ko waxee ñoo mën a mayante xaalis yaa ngi dégg ndax wax dëgg yàlla su ma jëlul du bëre ma ko mm-hmm. ñoo mën a mayante xaalis te entraînement tamit dafa mit te entraîné amoo combat pertement mm-hmm. yaa ngi dégg de ku soñoon mbër bu soñoon saison bi dañuy bëri bëri waat yaa mais tamit ñi ngi sant suñ ba suñ suñ suñ garant Bamba El Capo ndax wax yàlla ginnaaw mat bi ko amee moom ñu ngi koy sant bu baax baax di gërëm di ñaan yàlla yóbbu ñu bismillahi rahmaani rahim ñu génn si alhamdulilahi rabbil alamin Ibrahima jërëngeen jëf gis ngeen ko drapeau Matou la nag ni ko ñëpp waa Jenga ni sunu drapeau